wakaam ngor ak yoof yéeni bam noppee ca loola ñu yaakaar ne ca la yem dafa gontu jël roppalaan jëm Bignona foofa la tëjee campagne ak caravane bu rëy Le Quotidien ne gannaaw caravane yi meeting yi discours yi kaddu gi nag askan wee moom la voix au peuple yéeni cabinet élection législative anticipée yi am dimanche ji ministre de l'intérieur ma nga cay dalal xel yi ne condition yépp daje na ngir élection yi am ci anam gu mucc ayib Sud nag ndakaaru mi nga xam ne mooy xeex bu mag bi ana ku koy gàddu fuuta it yéenekaay baa ngay laaj ndaxam day wéy di doon titre foncier wu Macky ca booba yéenekaay ministre de l'intérieur ma ngay dalal xel yi ne élection yi dana am ci anam gu mucc ayib loola it la béral ca enquête réew mi quotidien ak laas booba lépp journal gis ne Pastef a ngi janook histoire ci élection législative anticipée yi war am ëllëg dimanche élection yooyu forum ci l'indépendant ne loola 7 millions 371 mille 890 électeurs yi ko war a at yéen kaa bi ne war a dem wote ji ëllëg yooyele wote biram seen directeur général des élections ci Soleil ne noppi nanu ngir lépp am ci anam gu mucc ay ci wàllu logistique di jumtukaay yi mu ne lépp yem na boobaleb journal dëggal ko ne département yépp yóbbu nañ fa dispositif électoral bi leen fa waxtu woowu di jàngat enjeu élection législative a am ëllëg yooyele élection Dakar Presse ne fukki junniy candidat doy na waaye pastef a ca nar ëppale yéenekaay booba yéggee ñu ab xayma gu jox pastef juróom-benn fukk ak juróom-benn ci téeméer boo jël ciy xob yéenekaay leen jox mooy ku ne pour cent maanaam téeméer boo jël fukk ak juróom yéenekaay bi ne yeneen candidat yi ñoo nga ca diggante 1 pour cent mbaalu ko yees Macky Sall ak Ousmane Sonko yéenekaay bi ne seenu xëccoo ca Matam dana teeng lool Famara a Cissé yéenekaay booba di ñu xamaleek moom ne mooy benn candidat bi nga xam ne mooy défendre sénégalais ci dictature bi leen banque yeeg télécommunication yi teg Ousmane Sonko justice bu amee majorité ci assemblée nationale ca vox populi amadou ba nga koy tontu ne haute cour de justice moom du dara lu bees moom jiital pastef ca boobaleb journal ma ngay source a waxtu woowa naan pastef moom bu ñu amee ndam ci élection yii ñu dëgmal nañu xam ne sénégal a ngi jëm ci kaw Abdou Mbow ne guute googa sax dugg nañu ci ba noppi ndax bu ñu maywul léegi te ñu tàmbalee am jafe-jafey fay salaire yeeg bëri mu ne it majorité moom bu ko Pastef amee nanu xam ne Ousmane Sonko nootaate gi mu tàmbalee nguuram kanam la jëm point actu waxtu woowu dañu xamale kanam yi fës ci campagne électorale bi yéene cabinet Ousmane Sonko bokk na ca moom mi ne woon diggante accusation révélation ak discours va-t-en-guerre yéene cabinet moom Sonko moo tàngal jër débat yi Macky Sall moom mooy l'absent le plus présent néew fi waaye moom la ñu a bàyyi xel bu défi bi ko Ousmane Sonko lancé ci Tahirou Sarr journal bi ne la nationalisme feeñee ci langue politique bu Sénégal Tafsir Thioye yéenekaay bi tuddee ko l'autre voie libérale maire Mabo Aliou Cissé nag journal bi ne mooy révélation campagne électorale bi campagne googu ko gàkkal ñaar fukki fan yi nu weesu yéenekaay bi ne tàngoon na jër waxtu woowa ci enquête général Tindi sàkku ci way politique ñu moytoo gàkkal image yu démocratie bu Sénégal ci élection législative yi ñu jëm ëllëg élection yooye ma nga cay wi mu jàpp ne buñ ca jaaree dana am ci anam gu mucc ayib ngir Sonko génnee na programme révolutionnaire programme boo xam ni yéenekaay bi ne lépp ngi tegu ci jàmm ak waxtaan ndax moom Amadou Ba ca booba lépp journal ma nga naan Sénégal tey lim gën a soxla mooy dialogue maanaam nit waxtaan ba juboo di xàccandoo di dóorandoo Ousmane Sonko moom ma ngay wéy di xàcc jëmale ca Macky Sall ca booba lépp journal ma ngay dëggalaat ne danañu ko yóbbu ca kanam haute cour de justice bu ñu amee majorité ba taxawal ëttu àttekaay booba ma ngay leeral it ne digganteem ak président Bassirou Diomaye Faye amul benn problème colonel Cheikh Sarr mi ne ci problème bu rëy gannaaw mandat de dépôt bu nu ko fugg ci mbiram Doro Gaye Les Échos ne lay sàkku bàyyib négandiku yéenekaay bi bind na juge d'instruction troisième cabinet ci alxamis ji ngir mu may ko bàyyib négandiku maanaam liberté provisoire moom colonel Cheikh Sarr nag yéenekaay bi ne daa weddi lépp lu ñu ko tuumaal keroog ba ñuy amal confrontation libération jamono jooja dikk ci mbiram blanchiment de capitaux bi nga xam ne ñu ngi ko jaarale ci fraude fiscale yéenekaay bi ne scientifique na ci mbir mu lëndëm doy waar muy toll quotidien géneen yéeni kaay nañu ànd gësam dañu ca am xel bu teey le ministre ba wax ci gàttal neenu gëmunu ko Adama Gaye journaliste waxtu woowa ca direct news di ŋàññi comportement société sénégalaise bi mu ne gëmatunu dara ñaawlu ni nu doxalee ci génnuk àdduna Mouhamadou Moustapha Ba Mouhamadou Moustapha Ba ca booba lépp journal ma nga koy dekkal ne nañu joxa turam avenue cadre tuddee ko Mouhamadou Moustapha Ba Ismaïla Sarr moom mi ñuy séentu ca équipe nationale ngir mu doon lieutenant wu Sadio Mané Walf Quotidien xel Pape Thiaw moom Sud Quotidien gis ne ma ngay gën a jekkal toogaayam di gën a dëgëral palaasam yéene kaay bi ne ndax ñetti match yi mu jongante yépp dacaa am ndam encaissé wul benn but juróom benn but dugal na ko te source a Mamadou Niang di noté Pape Thiaw jàngatit avenir am ci bopp équipe nationale bu Sénégal mu ne am na lépp li nu soxla ngir jiite boobaleb équipe ñun ñu taxaw foofa ñaanal leen kenn la jàmm dig daje altine incha allah AGT News